yeewoo ci diwaanu Folox nekk quartier yu bees yi ñoom nag dañoo daal di mere maire bi nee ñu moom moo daal di caxat caxatee seen suuf si nga xam ne nii moom la ñu am ba pare dëkk foofee. Sarr Sall mi nga xamante ni dafa bëgg a jël këru néew gi doole yi jox ko borom borom barke am na koo xamante ni dèjà kër yi nga gis ñu ba marqué ko yëpp moom de moom dafa yor dafa yor otoom rek ñëw di marqué boo ko wooyee mu ni dañ maa jaay damay jaar. ñu nekk ci ay tolof tolof yoo xamante ni maara ah autorité yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi war noo jàppale courant ak ndox jàppalewuñ dara kon kër yi nga xamante ne ñu ñoo fi nekk ñuy ay néew di doole ñu bëgg koo fakkastal ci suñuy loxo loolu naqaru na naqari nañu trop ba ci kanam yàlla ma bëgg lépp loo xamante ne maire bi jàppoon na ko lépp loo xam ne Cheikh Issa jàppoon na ko mu tegu ko ci suuf ñëw waxtaan ak waa dëkk bi parce que fii day wax dëgg fa yàlla tolloon na ay moment yoo xamante ne Cheikh Issa taxaw teg na fi tànkam ne bu gañee dëkk bi première priorité mooy faloox dina ko defar yile nag suuf yi nga xam ne nii ñoom da jot neen cee dëkk dañoo gis ne am neen ñeneen yoo xamante ni maire bi moo leen ko jox looloo waral ñu mer loolu. faloo loo fi gis xam ne loolu la ñu gis fas yéene taxaw pour jàkkaarloog ñoom ku mën a doon ku ñu jox kër nga ñëw fii dañ jàkkaaroo yow kooku moom ku fi ñëw doo fi tabax. ginnaaw nag bi ñu leen jéem woo ngir ñu àddu ci mbir mi équipe municipale bi fi nekk ñoom na nañu dinañ ci tontu bu baax a baax waaye ñu war a jàpp ne ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy wax wàllum suufa kenn jaarale kowul ci yoon ndaxte kat ñoom amul benn kayit boo xamante ni firndeel na ko ci wàllum yoon.